Serigne Moustapha Mbaye yow du président conseil départemental bu Le euh, conseil départemental de Foundiougne modi première ci autorité yi nga xam ne autorité yu njëkk yi nga xam ne ñoo am contact direct ak population yi foofu ci funjuñ mu nuy wax funjuñ xel yi dem ci euh, musiba bi nga xam ne moo daloon Bettenty Bettenty ñu koy fàttali mois de avril am na lu mat ñaar fukk ak benn jigéen ñu faatu woon foofu ca ca ca ca lab bi fa amoon ndax dañ daan dem wuti ji ay ay ay jën ak yooyu tey ji euh, laaj bu njëkk bi ñu lay laaj mooy naka la nit ñi dundee gannaaw jëye boobu waaw ñu ngi sant bu baax li la nuyu di nuyu li ñuy seetaan waaw mu doon lu métti Sénégal yëpp merci surtout département Foundiougne ah, ndax lu fa jógee ñi ci a mag trente deux ans lañ am ñëpp ay jigéen yu ndaw lañ en même temps ñu daf fekkoon ñu nekk jigéen wéroon yoroon doom ci seen biir am ak moom décédé donc euh, métti na trop métti na trop métti na Sénégal yëpp mais département Foundiougne yëpp ñoom la ñoo ñoo gën a métti waaye nag bi mu amee def nañ ci taxawaay bi ci war ki ci jiitu mooy président de la république ñu ngi ko ci remercier bu baax yebal na fa ay ministre moom déplacé wu ñëw na fa dépassé na fa alalam ñun tamit en tant que président conseil départemental dem nañ fa bi ñu jëm bi ñu demee appelé nañ leen yóbbu nañ fa un million de francs dimbale leen ko may leen benn salle de classe salle de classe bi sax tabax nañ ko ba actuellement ñu ngi ci finition yi euh, xale yi nga xam ne euh, ñoom la seen waajur gaañu président jël na leen en charge mais conseil département tamit am na lu mu leen prévoiral chaque année bés bu mu def dañ ci am lu jëndi pour jàppale leen waxtaan naa ci su conseiller ba ñëpp and nañ ci d' accord. gannaaw si ni bitinti ni hmm. jéye boobu daal di dal askan wi. Hmm. newoon nañu président de la république doon demoon na jaale foofu. Hmm. mais famille bu nit ku gaañu ko nekk may na leen quatre cent vingt mille. Euh, gannaaw si quarante mille francs CFA la joxe ñi nga xam ne ñu mucc. Euh, ci jéye boobu. naka la population yi nangoo enveloppe yooyu parce que dégg naa ni am na ñoo xam ne dañ ko dañu xawoon a frustré. waaw dama yaakaar ne loolu ay rumeur la rek mais dëkk bi yëpp am nañ kontaan ci li président def département bi yëpp rafetlu ko parce que foofu la jullee ndox ñoom juma. mais trente millions ci jumaa ji pour ñu eggale ko euh, ak li nga xam ne moom la jox euh, ñi amoon jëye ji. jël en charge euh, xale yi nga xam ne ñoo ñàkk seen wayjur aussi may leen brigade gendarmerie pour que mu mën a contrôler gaal yi fay jógee bu bu ëllëgee duñ mën a def benn jéeya dèjà immédiatement la def loolu may leen commune aussi bu nga xamante ne dina leen permettre euh, bu ñu soxlaa ay kayit ak yooyu dootuñ déplacé wu di dem ay tuwaakut ak yooyu waaw lam fa war a def daal pratiquement def na ko bi mu dëkk bi mu bi mu paree dafa dem bàyyi ñu fa ñu ñu fi bàyyi ñu dañoo dëkk ba man ak maire commune ba waxtaan ak ñoom mais ñoom ñëpp ñu ànd rafetlu action bi président def ba élection yi paase sax loolu feeñ ci bu baax a baax a baax. parce que ñun nit ñi jooy woon nee nañu ay gaal yu ndaw yoo xam ne fanweeri nit ñoo ci daan war a nekk. Hmm. waaye demoon nañu ba euh, gaal yi doon chargé ba juróom. jurum fuk ak ñaar jurum fuk ak jurum ñaar fuk nit loolu taxoon eh, musiba boobu am hmm. est ce que ci diggante bi comportement yi nit ñi changé nañ ko seen ci ko waaw en tout cas wax nañ leen ko wax nañ leen ne leen président même bu fi ëndee brigade mënul tànn ku nekk ñu boole ak sànni mu lay contrôlé nit ñi ci boppam ñoo war a xam liy seen njëriñ ak xam li nga xamante ne suñ ko defee mën a sàmm seen bakkan waxtaan nañ ci ak ñoom bu baax a baax ginnaaw bu gannaaw bu fa président jógee aw nañ borom dëkk ba ak élément ji dañu ne nit wax na leen président mayee na na fi indi ko brigade pour que ñu contrôler gars yi pour ñu bañ si sarse mais contrôle bi gën a wër yaakaar naa ni yéen a koy defal seen bopp waxtaan wax nañ sensibiliser nañ ñi waxtaan nañ ak ñoom vraiment ba am nañ yaakaar ne lu mel noonu duñ ko def ñaan naa président aussi mu dimbale leen ci ay financement parce que ndóol gu métti moo waral loolu parce que àll boobu dafa am ay jafe-jafe que ñun fa laa dëkk dafa am ay jafe-jafe ci nit ñi moo tax jigéen ñi di dem ci àll bi di daan seen doole ba loolu dal leen mais xëy na bu fekkee dimbali ci ay financement lu mel noonu dana wàññeeku loolu nag ci parce que bu ñu fi jógee am ay financement yu am solo yoo xam ne boole na ma boole na conseil départemental ak ADL euh, wala de deux cent et quelques millions pour que ñu dimbalee ko jigéen ñi nekk ci àll bi. ndaw yi amul liggéey ba sori nañ ci ba commencé naa def financement bi man ak banque ba commencé nañ def financement bi daal yaakaar naa ne loolu gënaa dimbalee département bi ci yu mel noonu waaw ku xam funjuñ xam ne dëkku napp la euh, funjuñ mu nekk presque comme lu ñuy wax presqu'île nga xam ne bala ngaa mën a jógee euh, dem fekk yenn dëkk il faut forcément nga jaar ci bag bi

te am na solo trop aussi euh, point ba mu fay def nekk na point bu am solo presque point bi fere na ci trente cinq milliards yaakaar naa ni mooy point bi gën a mag ci Sénégal donc euh, euh, ñu ngi koy liggéey Sénégalais yooyu fa nekk ñu ngi ciy bénéficier bu baax surtout transporteurs yi ak ouvrier yi nga xam ne foofu lañu nekk ñu ngi ci liggéey bu baax a baax gis nañ ci seen bopp te jàpp nañ ne euh, pont bu pare paree dana suqali département Foundiougne bu bu baax a baax ndax ku xam Foundiougne xam ne sonn la bu nga xam ne euh, pêche dafa am solo mooy napp mi tourisme bi am fa solo mbay mi tamit am fa solo tourisme bi dana faciliter touriste yi bu ñu jógee fii war a dem Toubacouta ci pont bi la ñuy jaar dootuñu am benn jafe-jafe ji wóoru ba Kaolack eh, ñi nga xam ne dañuy wàll dañuy yëngatu ci napp yu tamit dana leen yombal bu ñu nappee mën a jaar ci pont bi rapidement ñëw Dakar pour jaay seen jën ñi nga xam ne dañuy bay eh, tamit dina leen jàppale ba lépp lu nga xamante ne ñu koy bay ci fu Foundiougne dañ ko mën a génnee yóbbu ko Diourbel wala ñu yóbbu ko Dakar wala ñu yóbbu ko saint bi en tout cas bokk na ci li nga xam ne daal vraiment am nañ yaakaar ne su paree dina suqali suñ goor suñ gox boobu baax a baax a baax parce que nag suñ gox boobu dafa laaj ku leen suqali mais wax dëgg yàlla président de la république mu ciy góorgóorlu bu baax baax

Abdou Latif Coulibaly mi nga xam ne mooy secrétaire général du gouvernement bi. Hmm. mi nga xam ne dafa nekk buñ koy wax tey ci ay tendance kujje. Hmm. ngeen nekkee foofu ci euh, Foundiougne. Hmm. moom la xale yi daal di tabb ne moom lañ bëgg mu doon seen liste tête de liste départementale. lan moo waral changement bi am. waaw moom président la république nga koy laaj parce que ñun daal li ñu xam mooy Benno Bokk Yaakaar man maa ko jiitoon foofu man maa defaroon suma liste déposé. liste bi ma déposé woon président jël na ñamu ci ñi ma tànnoon ñëpp président jël na leen donc si keneen nag xaw ma ci dara mais en tout cas suma liste moom président jël na ko et tànn na sumay candidat sumay candidat def nañ campagne wote nañ gagné nañ voilà. est-ce que nekkul. Euh, président jëlewu ci leçon ndax bi ñu jóge ci élection au conseil hmm. yéen dangeen nekkoon ci benn bokk yaakaar hmm. mais yéen ñi bëggoon a falu président dafa bañ daal di choisir ñële hmm. nga daal di gedd ak ñi nga àndaloon dem ànd ci listu euh, écologiste yi ba defee naa ni élection yooyu bi ñu amoon yéen a gañe woon

gëstoo suma sax résultat bi ñu am actuellement lan mooy sama problème mooy présidentielle bi ñëw 2019 mille dix neuf ci laa commencé liggéey la ma defoon ci au conseil bu gëstoo ma ko moom xam na waaye département bi xam nañ li ñu def ci législature bi président xam na département boo xam na léegi nag li ñuy teel ñun mooy ñu ñu fal président premier tour 2019 te commencé nañ ci liggéey à partir de 30 voilà waaw euh funjuñ toujours buñ fay dess ñu ngi wax euh, Ali Diallo hmm. Tidiane Ba hmm. Latif Koulibaly Ndoura Fay ak hmm. compagnie ñan ñoy ñi nga xamne yow ñoo ñu ngay liggéeyal tay wa man ma ngi liggéey ak euh, concert bi ma andal mu busu jalla mu busu jallu jité ko mais dama yaakar ne xalé yi ñoom ñom mujj nañu retrouver parce que loolu positionnement la woon rek bi nga xamee ne président décidé na ñoom ñëpp gisee nañ euh, muy Mabousso Diallo Cheikhou Thiam ak yeneen euh, responsable conseil yu nekk ci département ba bëri mais yaakaar naa ne euh, keroog bi ñu def institut wu bi ñoom du war ak xale yooyu yëpp daje nañ waxtaan nañ yaakaar naa war nañu ànd nekk benn voilà c'est ça. Babacar Diamé mo doon député maire wu Foundiougne. Hmm. Simon fay nek député maire. Simon Dianko. Hmm. non au conseil. Simon fay au conseil la. lan mooy seen projet ak seen ambition pour mën nek Euh, ñenn ñi nga xam ne yene nekk interlocuteur euh, benn bokk yaakaar interlocuteur présidence de la république fasine ànd ak Macky Sall yóbbu ko ci ndam yi ci élection présidentielle bi njëm hmm. waaw loolu comme ni ma amee habitude di ko wax rek ñun bi ñuy tànn suñu candidat yi tànn bi ñu def danañ permettre ba ku ñu tànn nga département bi parce que ñoom ñu tànn xam nañ ne ñi leen mën a remplacer bari nañ fa te xam nañ ne ñi leen tànn suñu defee lu nga xam ne njëriñal département bi la su ëllëgee suñ soxlawaatee mën nañ leen jox mais ñoom pap janko simo wóor na leen ne liñ leen jox buñ ko deful su ëllëgee buñ laajaatee duñ leen jox parce que joxuñ leen ko ci benn critère bu nga xamante ne ña fa nekk amuñu ko ñoom ñoo fa nekk ñoo nekk képp yem maire lañ comme ñoom dafa fekk rek nekk nañ candidat ñu xam ne lu ñëpp lu ñëpp bëgg te bariwul il faut am ñu ko mérité ci cadre boobu lañ ko tànne donc seeni naaw la fa nekk soxlaa lu ñu leen dara lu dul ñu liggéey département bi te tamit yaakaar naa ne dox nañu respect bu nga xamante ni dañ liggéeyal département bi walla suñ ko liggéeyul suñ eggee ci ci pandow yooyu ñu def ko ñoom parce que département fu ñu ñoom lebleetuñ mayeetuñ soo defee ñu fay la soo defut ñu seeti ku mën def ñu jëflante moom.